واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون kon kàddu yi du gudd kàddu yi ñu ngi rek ñu bàyyi ko ci ki fi nekk Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu ma sëkk li nga xam ne na ko ci lislaam am ko ci yoon wala suñu borom lañ ko kattan ak biir ni mu ko bëggee ndax. xelam jullit yëpp dal ci moom xelu taal yëpp dal ci moom kon ñu ngi bokk jullit yëpp taal bi yëpp di ñu di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké al imam mi nga xam ne eh, ñëpp xam nañ ni mu demee ndax sëtu Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Ndaw Abdourahmane taxawaay itam di sëriñ bi séentoon bu andi ko fi ne matal topp ci ginnaawam di sëriñ Serigne Bakhsi Faye mi nga xam ne moo yore kàddu Serigne bi di fi jëwriñam ci Ndakaaru ak mboolem bi ko wër lépp mooy itam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali nga la doon ndax liggéey bi bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci jitteem xam ci positifam ba yàlla def suñu am def li ci ëpp Ndakaaru kon moom itam ñu sant di gërëm taalibe bi yëpp topp ci ginnaaw wax ji nag ndax dañuy sant bokk jullit yi rek ak bokk taalibe bi rawatina fii àdduna toll nii ñëpp maase xam wopp ji nga xam ne suñu moom wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di bas moo xam ne yàlla ko yàlla teggi ndax ñëpp xam na li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba. mu demewaat nii ba ak woy faral ñëpp gën a góorgóorlu ci sàmmante li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoro ku ne ci yow war ngaa fexe ba boo bu ko wàll sa morom ku néew ci itam war ngaa fexe ba di ko loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalibe ndax jàkk ji wa anna al masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi jullit yëpp nag maase gi ñu maase gi ñu ci xam ne jàkk ji néegu yàlla lépp lu ñu askanale sëriñ bi waa jullit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi loolu lu ndund loolu lu fir lii nag firnde la ci ne wóosi ko ko ñëpp wóosi ci loolu xam ne xam ne néegu yàlla ba tax mënoo fee xàmmee murit ak tijaan ak xaadim ak laayeen ak yeneen tamit xeet ci yëpp ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ te askan wi ci dara xel lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaane na ko ne te rasulullah indi ko al mu'minu axuhu axuhul muslim innamal mu'minuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lim santaane ci jullit yëpp maas ci àndoo nekk bi lii bokk na ci li koy firnde kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ ba kuy fay yóbbante bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taalibe bi jëme ko ci bokk jullit yi moo leeral ko ni mu ko war a waxee boo xam ne am na ci ndigal lu bàyyi ko ci ki fi nekk Serigne Touba di ak Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan lu yàgg fi te ànd ak mu jot li mu bokk taal bi ak bokk jël ñëpp diggaloo ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi si bitim réew da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo leen vidéo boo ngir mën a xam nga xam